bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin nabiyina muhammadin sala allahu alayhi wasallam subhaanaka laa cilma lanaa illaa maa callamtanaa innaka anta alcalimu alxakim allahuma allimna maa yanfacunaa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 mu di xéewalu nga xamante ne ci moom dong la bàyyeekoo te ci moom dong ne amul feneen fu ko doomu aadama bi di sàkkoo fu dut fa moom yàlla ndax mooñu ko yënkeewal moo ñu ko jagleel moo ñu ko baaxee ka weddi loolu nag da ngay dem xool ci téere alquran ba ñu yore ci suñu dund bi mu nekk uh, alquran bi nga xamante ne buur yàlla tabaraka wa moo ñu wërsëgal jox ñu permission bu toll ni mu ne ñu téere la ba ma wàccee ci sama yonent bi mu nekk téere bu lambok barke waaye ma jox leen ndigal ci téere boobu ngir ngeen mën a càmbar gëstu def recherche ak investigation ca aaya yafa nekk kawtiif ya fa nekk waraate ya fa nekk njëriñ ya fa nekk waaye boroom xel yu yanj yi ñu war si war a mën a manqué la xamante ne buñ ko sottilee askan bi askan dinañ si war a mën a njëriñu boroom xel yu yanj yooyu yalla joxoñ ne ñooñu ñooy war a manqué ci ayatul quraaniya aaya ya nekk ci téere bi borom xel yu sell ñooñu mënees nañ see ne imaam yeeg asaatisa yeeg suñu sëriñu daara yeeg kilifa yu ŋànk diini bi ñooñu bu dee yàlla ñoom la ñu dénk ñu war a manxee aaya ya nekk ci alquraan bu dee ñooñu la yàlla dënk ñu war a mën a manxee kawtiif ya nekk ci alquraan ñii di ko firi ci rajo yeeg ci télé yi ñiy ziar di nuyu suñu imaamu jàkk ca géejawaay waaye mu doon boroom xam-xam bu mag fii ci kër gi muy imaam libaas jëy ñu di ko ziar di ko nuyu mooy firi alquran ci béréb bi ak mboolem asaatisa yay taxawee taxawaay bi moo xam ci jàkka yi la moo xam ci télé yi la moo xam ci rajo yi la ñu di leen di ziyaar di leen ndokkele ndax ñoom la buur yàlla tabaraka wa taala dénk xam-xamu alquraan ñoom la buur yàlla tabaraka wa di joxoñ ci aay bi mu ne ñu ñooñu ñooy borom xel yu yanj yi nga xamante ne ñoom la jox ndigal ngir ñu manqué ci alquraan kawtiif ya nga xamante ne manees nañ ka sottil askan bi askan bi war see war a mën a bénéficier wu ñu war se war a mën a njëriñoo moo tax buur yàlla tabaraka wa taala mu di ñu wax ci téere bi ginnaaw bu mu ko wàccee ci jaamam di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa te mooy sang mbindaa foo yàlla tabaraka wa taala di ko ne kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaru ayaatihi wa liyatadakkara ulul albaab moo ne yàlla buur bi tabaraka wa taala dana yonent bi ne téere bi de téere la bi ma wàccee ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la nekk ci biir daa fees dell ak ki ko jàng lambok barke ji ki ko sopp lambok barke ya nekk ci téere bi ki bëgg fañ kay jànge yàlla dottil la barke ya nekk ci téere waaye xataa ki bëgg ki jàng téere bi ba nga di ko taxawee yàlla boole la ci barke ya téere bi lamboo waaye bur yàlla ne ko li yatadabbaru ayatihi maa leen jox ndigal yombal leen ko tàggat seen xel ak seeni xol ngir ngeen war a mën a gistu kawtiif ya fa nekk waaye waliya tadakkara ulul albaab borom xel yu yanjey nag ah ñu mel ni ñañ leen tuddal a imma yi asaatija yi cheikh yi kamfoore yi ñu war a mën a yeggee askan bi lépp la nekk ci alquraanul karim bi nga xamante ne moom la buur yàlla tabaraka wa taala wàccel yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax na mbokk yi kawtee ya nekk ci alquraanul karim ba tax na buur yàlla tabaraka wa taala joxe ndigal yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam ne nit ay jëmm yoo xamante ne ñoom de ndegem soobu nañu ci géeju alquran war faa war a mën a nappee lañu war a tegal askan bi ci pénc bi dinañ ci am lu leen doy sëkk sëkk sëkk ba tax na yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ma wàccel téere boobu di alquranul karim bokk na ci aaya ya fa nekk yoo xamante ne buur yàlla subhaanahu wa taala moo ne ci sama xéewal yamala xéewalal yàg say xeet mu doon xéewalu nelaw bi nga xamante ne proof beeg tegtal adilla waadiha tegtal yu leer nañ képp ku dem ubbi alquran dinga ko fa fekk mu doon xéewal ya jagleel yow sama ndaw sallallahu alayhi wa te mu nekk xewal bi nga xamante ne képp koo xamante ne gistu nga ci ayatul quraan di nga gis ne ndekkete ci dëgg dëgg dëgg yàlla mooy buur ba wàcceel yenentu bi al quraan ngir mu di ko leeralal nit ñi ba tax na képp ku dem xool ci saar ba nekk ci alquran di suratu ruum di fa fekk uh, aaya ba yàlla di joxoñ ne man yàlla may ki leen tàggatal xéewal ja nekkee te mooy xéewalu nelaw moo tax buur yàlla ne ñu ci maana aaya bi mu ne ñu wa min aayaatihi bokk na ci kawtiif ya nekk fa yàlla mu doon kawtiifu yàlla yi manaamukum billayl nelaw ba ngeen di nelaw ci guddi loolu kawtiif la waaye jamono yi ñuy jëfandikoo nelaw woowu ci guddi loolu tamit kawtiif la moo tax yàlla boole ñaari kawtiif ci benn jamono ci benn kilima kawtiif bu njëkk bi mooy nelaw ba mbindaafoon yi di nelaw nelaw ba mbindaafoon yi di jëfandikoo ci guddi buur yàlla ne ñu loolu ngeen di jëfandikoo ci moment bi nga xamante ne mooy guddi mu ne ñu wamin aayaatihi bokk na ci kawtéef ya nekk fa man yàlla manaamukum nelaw ba ngeen di nelaw kañ bil layli ci guddi bokk na ci kawtiif yi nga xamante ne bokk na la leen xéewalal man yàlla wan nahaar ak bëccëg bi nga xamante mooy jamono bi ngeen di kirkiri dem faggu dem sàkku la nga xamante ne mooy wërsëg yama leen tasal ci kaw suuf si su ko defee du ñàkk ci kanam tuuti gannaaw bu ñu jëfandikoo nelaw bañ doon jëfandikoo du ñàkk am ñoo xamante ne ñu ngi waaj a takk seeni bagaas ñii di waaj a takk seeni dàll ñii di waaj a génn ak seeni saak seen kër ngir dem joxe remplir la nga xamante ne mooy sart ya ñu siq ak seen bérébu liggéeyukaay képp ku génn ci kanam tuuti dinga gis raj-rajloo beeg demalante beeg dikkalante wi ci tali yeeg ci mbedd yi moo ne fa nit ñi di jëm mooy faggutee fu wërsëg ba nga xamante ne yàllaa leen ko tasal ci kaw suuf si su ko defee kenn ku nekk dem di sàkku sa wërsëg fa nga ko war a sàkkoo ci bërëb bala yàlla tegal sa wërsëg waaye mu doon waxtu wi nga xamante ne yàlla la baaxe waxtu boobu te mooy waxtu yu bëccëg buur yàlla ne wa bitigaaukum min fadlihi ba léegi mu doon mooma waxtu woo xamante ne fa ngeen di nekk di sàkku ngéneel baleen yàlla tasal ci kaw suuf si yàlla ne lii ma leen joxoñal nii ne nelaw ba ngeen di nelaw ci guddi wala ci climat bi nga xamante ne moo nekk climat guddi ak bëccëg ba ma leen leeralal ba ngeen di am xëy di dem kiri-kiri di sakku la nga xamante ne mooy la leen di njëriñ ci seeni dundu ci fa ma ko tegal yalla ne lii ma leen joxoñal ni moo tax mu ne inna fi daalika mu ngi ci li ma leen wax nii la ayatin kawteef bi nga xamante ne ña ko war a mën a xalaat ña ko war a mën gis ña ko war a mën a dund du ñëpp nag waaw yàlla dafa am exception yam fi bëgg joxoñ ngir kenn ku nekk si ñun ñu xam ne la yàlla wax nii de am na ñu koy xalaat am na ñu koy njëriñu mooy garaat ba yàlla bëgg tabal jaamam yu mel melokaan bam ñu bëgg a wax nii moo tax mu ne ñu inna fi daalika li ma leen joxoñal nii ne loolu mooy kawtéef ba nekk ci guddi ak la ngeen fay nekkee waaye kawtéef ba nekk ci kilimaam bañ naan bëccëg ak la ma leen ne noonu ngeen fay nekkee buur yàlla ne inna fi daalika mu ngi ci li ma leen joxoñal nii la ayatin kawtéef bi nga xamante ne li qawmin ñiyal xeet ñoo xamante ne yasmaun ñoo yore nopp garmi yoo xamante ne kawteefu yàlla la ñuy nangoo déglu kawteefu yàlla lañuy nangoo dégg lépp la alquran joxoñ lépp la yonent bi tegtal sallallahu alayhi wa sallam ñoom de loolu mooy seen la dégg ak seeni nopp waaye mooy loo xamante ne la ñuy nangoo déglu ak seeni nopp waaye jëmma ja nopp boobu nekk di dundu jëmma jooju mooy nangoo tënk boppam ci lépp lu yàlla santaane subhaanahu wa taala yenentu bi jàngale ko sallallahu alayhi wa sallam ba tax na ndegem buur yàlla moo ñu jox autorisation bi ni mel ndegem buur yàlla moo jox la nga xamante ne mooy ndigle yinimel si ko defee nañ leen géem a góor góorlu képp ku dégg béréb ba ñu naan qaala allahu neen wa qaala rasul wala yonent bi wax na nañ leen may nopp jëmm jooju ak béréb yooyu amaana du ñàkk ñu dégg fa loo xamante ne mooy lañu njëriñ njëriñ boobu noonu ñuy njëriñu ci déglu lépp la yàlla wax wala yonent bi digle ko sallallahu alayhi wa mooy la tax yàlla bindal ñu appareil yam ñu bindal moo ne moo tax yàlla bindal ñu appareil ba nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo ba tax na yéen a ngi fàttaliku suñu waxtaan bañ doon waxtaan ak mbokk yi ci jamono yu paase mu doon anwaa'ul quluub almadkuura fi l qur'aan xeetu xol ya nga xamante ne buur yàlla tabaraka wa tudd na ko ci alquran di téere bu mag bi te ñu ngi yemoon ak yéen ci ay xeetu xool yi nga xamante ne ñooñu ñooy xol wi xam wi nga xamante ne buur yàlla tudd na leen ci alquran màndargay xol yooyu moom la borom bindkat bi daal di ñu bindal donte matalut xeetu xol ya alquran tudd te mu nekk téeméer ak fanweeru xool yi nga xamante ne benn bu nekk ak la muy dund ak nu muy dundee waaye yéenaa ngi xam ni keroog ñu ngi taxawoon ak yéen ci xool bi nga xamante ne mooy alqalbun taqiyi huwa alladi yuaddimu sha'air allah ñu ne xol bu ràngoo ko ragali yàlla mooy xol bi nga xamante ne mooy xol buy màggal bépp béréb bépp makaan ba yàlla tànnal boppam mu choisiral ko boppam ne béréb yi de ñooy buqaatu sharif ñooy béréb yu laab ñooy béréb yu sell yi nga xamante ne man buru yàlla maa tànnal béréb bi sama bopp mu doon sama béréb ya ma bëggal sama bopp ñu ne xol woowu moom la alquran di wax ne dalika wa man yucaddimu sha'aa'ira allah fa innaha min taqwa alquluub tey nag inchaa allah ndem soob na borom bi tabaraka wa taala ñu bëgg leen andil alqalbul hayy wa huwa alladi yuminu billahi wa yashkuruhu wala yakfuruhu waaw donte xol boobu tamit waxtaanee nañ ko ak yéen mooy xol buy dund te mooy xol bi nga xamante ne mooy xol bu nga xamante ne day sant yàlla gëm na yàlla di ko sant musuta nekk ci dara lay nekk lay merlo yàlla du musa tàbbi ci lenn luy xeetu mooy yàlla xol boobu waxtaanee nañ ko incha allah tey ñu andi leen alqalbu almarid wa huwa alladi asaabahu shakka wa nifaaq tey loolu lañ leen bëgg a àndil bi iznillahi subhaanahu wa taala mbokk yi ñu ngi leen di fàttali ne yéen a ñun ci réew mi fm 97.5 ci waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji kon tey incha allah nem soob na suñu borom tabaraka wa ñu fas yéene sóobandoo ak yéen ci xol bi nga xamante ne mooy xol bu feebar xol bu wopp xol woo xamante ne la nekk ci xol bi du lenn lu dul feebaru xol waaye buñ ne feebaru xol ñu bañ a jàpp ne mooy feebaru xel wi nga xamante ne mooy ñay taxawaalu ci mbedd wi ñu yàlla da leen nattoo la nga xamante ne mooy natt ba jóge ko fa boromam waaye ña yàlla teg feebaru xel wala feebaru xool ba nga xamante ne mooy alqalbul marid wa huwa alladi asaabahu shakk wa mooy xool woo xamante ne dafa am sikki sakk ci lépp li yàlla joxoñ waaye mooy xool wi nga xamante ne dafa lamboo xeetu naafiq xool boo xamante julit ba mu nekkee kuréelu jullit ba mu ne fa la bokk bokk fa ci lay wone ne loolu lu dëgg la ci moom waaye mu doon jëmma joo xamante ne bu ñu ko sañee wax ci terme jamono walla ni ko jamono yi nit tey di waxe day signaler gauche tourner droite waaw jëmma jooju daal day signaler gauche bi nga defe ne fa lay tourner waaye nga gis mu daal di tourner droite moo ne la mu nekk di fësal la mu nekk di feeñal bokkul ak la mu nekk di fas ci biir xolam ñu ne kooku mooy boroom xol bu feebar mooy alqalbul marid xol bu feebar mooy jëmm joo xamante ne huwa alladi mooy xol ba nekk ci jëmm joo xamante ne asaabahu shakk daka laal daa nekk di dund sikk sakk est-ce que man yàlla bi may jaamu est-ce que est-ce que yenent bi ñu nekkoo kooku la yàlla yónni est-ce que est-ce que est-ce que yu bari yooyu fa nekk di sikki sàkk ca lakkay njëriñ waaw képp ko koy woo ca lakkay njëriñ sax dana nekk di am arrière pensée yoo xamante ne dina dem ba ñàkk ci loolu ko war a njëriñ boo koy woo ci njub fa lay nekk di sikki sàkk boo koy woo ci leer jëlee ko ci lëndëm falay nekk di sikki sakk est-ce que est moom daal ñaari xeetu feebar mooy dal xol woowu benn bi di feebaru xol mu doon la koy sikki sàkkaloo ci lépp moom mënut dugg ci lenn bi mu ci am certitude moom daal buy jàng alquran da koy jàng ci sikki sàkk buy ñaan yàlla day ñaan yàlla ci sikki sàkk waaw loolu noonu sikki sàkk yooyu noonu muy nekk xam ba xam lii la muy xelaat ba xam nii la wala nee la ba xam lii la wala lee la loolu moo koy tax a tàbbiloo ci xeetu naafiq bi nga xamante ne buur yàlla tabaraka wa taala ñu koy wax ci alquraanul karim ci béréb yu fasante ko waaye doy na rek ñu dem xool ci suratul baqara nga xamante ne mooy njëlbeenu saar ci wala ñaareelu saar ci alquran bur yàlla mu ngi wax ne baada audu billahi min alsheytaani arrajim nee na ñoo xamante ne dañoo weddi yàlla inna alladina kafaru ñu weddi xéwalu yàlla weddi la yàlla wàccee ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buur ne yonent bi bu fi nekk di sonal sa bopp moo tax yàlla ne ko sawaun yem na si ñoom képp alayhim ci ñoom a andartahum moo xam xuppu nga leen waar nga leen am lam tundiruhum wala bañ nga leen waar ñoom daal lañu ñu nekkee mooy laa yuminuun ñoom du ñu mus a gëm la andi du ñu mus a leen di wax ñoom daal moo xam waar nga leen moo xam waaroo leen moo xam xupp nga leen ci lala yàlla ne nang xupp doomu aadama yi moo xam defoo ko ñoom duñu mës a gëm loo leen di wax waaw moo ne buur yàlla lu tax ñii duñu gëm la leen ñu bi di wax yàlla ne xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absaarihim ghishaawatun wa lahum adaabun adim buur yàlla ne ñooñu de maa kaste seeni xol maa fatt seeni xol maa fatt yoon ba wax ju baax di jaar tabbi seen xol mooy seen nopp yi ñu war a déggee waaye maa fatt seeni appareil ba ñu war a xoolee lépp luy màndargaay kawteefu yàlla seen xol di ko mën a nangu appareil boobu di bët man yàlla maa ko fatt maa ko kaste waaw ba tax na ñoom daal ñeel na leen keroog bés penc mbugal ju métti mbugal ju màgg boo xamante ni man yàlla maa leen koy mbugal moo tax mu ne yalla yàlla daa kaste ala qulubihim seen xol yi wa ala ak seen nopp yañu ñu war a luy kawti ba jugee ko fa yàlla wala absaarihim waaye man yàlla ba léegi ma kaste seen bët ya ñu war a xoolee lépp luy kawtif ba tukkee ko fa yàlla yàlla ne gishaawatun kaste woo xamante ne kenn mënu koo dindi kenn mënu koo tax ba mu deñ te ñooñu ñooy walahum ñeel na leen adaabun mbugal wi nga xamante ne azim mooy mbugal ju métti te mooy mbugal ju mag wi nga xamante ne maa leen ko jagleel keroog bés penc yal na ñu yàlla musal mbugal bu mel ni bur yàlla ne ba léegi xol yooyu noonu ne mooy xol yu feebar xol yuy dund ci sikki sak bokk na ci fa buur yàlla di waxee ba léegi ci maana aaya ba nekk ci baqara ba léegi buur yàlla ne ñoo fi quluubihim maradun fa zaadahum allahu marada wa lahum adaabun alimun bima kaanu yakzibuun bur yàlla tabaraka wa taala ne ñu ba léegi fi quluubihim nekk na seeni xol maradun feebaru bokkaale yàlla fa zaadahum allahu marada yàlla daal di jëmmal feebar woobu feebaru bokkaale yàlla ba nekk seeni xol ndax ñoom loolu lañu bëgg di ko dunde loolu la ñuy loolu la nangu ci loolu lañuy ñuy xëy di si gontu ci loolu lañu ñu yàlla nee na ma daal di di leen yombalal ngir feebaru bokkaale yàlla woowu daldi di meññ daal di seen biir xol ma bàyyee leen feebaru xol ba ñu bëgg dunde ma yombalal leen ko ma daldi di leen xàllil yoon ngir ñu mu ngir ñu war a mën a nuuru ci feebaru bokkaale yàlla ba ñu nekkee ngir ñu war a mun a nuuru ci feebaru weddu yàlla ba ñu nekkee moo tax yàlla ne fa zaadahumullahu marada yàlla daldi leen yombalal yokkal leen feebaru xol boobu ñu opte ne yi yaay loolu lañu bëgg yàlla ne walahum ñeel na leen ba léegi adaabun mbugal wi nga xamante ne alimun mbugal ju métti la kaanu ca la ñu nekkoon yag zibuun di ko weddi kon képp ku nekk di weddi kawtéef ba yàlla joxoñ te mu jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa fekk ne sa xol da di xol bu feebar daa fa am malade ba fa nekk donte yaa ngi yore R plus 8 donte yaa dawal la nga xamante ne mooy matérielu àddina fekk wéttali yàlla ak gëm yonent bi salaa sallam ak topp principe islaam nekkul ci sa xol melal ni la neex sa xol moo am feebar weddi yàlla melal li la neex amal li la neex waaw na la nit ñi ñee waaye gis nga bu fekkente ne topp yàlla ak topp yonent bi ci ay ndigle yi bàyyi tere yi nekkul ci sa agenda boobu ngay dund yow boo ko xamee ak boo ko xamul boo ko yégee ak boo ko yégul xamal ne feebaru xol ba ñu naan shakka ak nifaaq moo nekk ci sa xol di dund foofu feebar bu ñu naan sikki sàkka ak feebar bu ñu naan naafiq moo nekk sa xol mu di fa dund te boo amul dara loo koy faje amaana boo dajeg sa borom foofu ah la fa nit di war a mën a tiit mooy la yàlla ne ñe xol feebar ci bañ a wéetal yàlla seen xol yore feebar ba mel ni bañ topp yonent bi sallallahu alayhi ñooñu la yàlla wax ne fi quluubihim maradun fa zaadahum allahu marada weddi yàlla bokkaale yàlla bu dee feebar booboo nekk seeni xol ñu nuuru ci yàlla daldi di leen yombalal loole yokkal leen la tax ñu war a mun suubu ci feebaru bokkaale yàlla ak feebaru mooy yàlla xamante ne yàlla ne leen wala hum ñeel na leen adaabun alim mbugal ju metti bi ma kaanu ca la ñu nekkoon yakzibuun di ko weddi ñu bañ ko déggal nañ leen wéetali yàlla ñu lànk bi tëdd si naaj bi ñu ne duñ ko wéetal nañ leen topp yonent bi ñu ne ah ñun daal waaw su ko defee ñu nekk ci leneen lu wuteeg topp ndigle yonent bi sallallahu alayhi yàlla ne ndegem appara appareil ba nekk seen yaram di xol moo leen di dis disorienté jilee leen ci yoonu njub yóbbu leen ci yoonu cànkute ñëw ñu meloo melokaan wii ñii la yàlla wax ne keroog bés penc yàlla jagleel na leen mbugal ju metti ci li ñu nekkoon di ko weddi bañ kaa déggal ne loolu mooy lépp lu yàlla santaane mbokk yi yan na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot yàlla ñu yàlla may dégg ak topp lañu dégg ci kàddu gi yal nañu ko yàlla defal xasanaatu fil mizaan yan nañu ko yàlla man loo ñu di ko jëfe amin ya rabbal alamin bur yàlla sañ na ko man na ko yan nañu ko yàlla boole defal waxtaan bi jeexul dañoo yegsi fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu war a jébbal béréb bi ñuy joxe xibaar ci nasaraan saa iliina mawla jalla wa ala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsana amiin yaa rabbal aalamiin allahumma yaa rabbi aati nufuusanaa taqwaaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaaha anta waliyuha wa mawlaaha fa nicma almawla wa nicma alnasir allahumma musarrifu alquluub sarrif quluubanaa alaa taatik allahumma yaa musabbit alquluub sabbit quluubanaa alaa diinika amiin yaa rabbal aalamiin allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih allahumma aimmatana wa wulaata umuurina allahumma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin baaraka allahu lii wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafa'ani allahu wa iyyakum bima fihi min alayati wa dhikri alhakim aqulu ma tasma'un wa astaghfiru allaha lii wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh